chers téléspectateurs il est 8 heures passées de 18 minutes euh, dellusiwaat nañu ci euh, réveil bi en tout cas pour mën a wëyal on est avec euh, pierre fay Faye l'invité de PEF en place ñu ñëw waxtaanee pourquoi pas solos réew mi rawatina wàllum politique alors c'est Pierre-Edouard Faye kon ñu bàyyi leeg Mamadou Guissé ngeen wéy moom ci waxtaan wi ñu fàttali moom mooy njiital parti Fulla ak Fayda. waaw jërëjëf Aïcha donc Abdoulaye Mamadou Guissé mm. nekk donc président. parti bi di Fulla ak Fayda nekk président observatoire de la musique et des arts du Sénégal di OMART nekk conseil spécial bu président bu conseil économique social et environnemental gis nañu liste ñi déposé pour nekk candidat pour élection yi soixante dix ñi ne soixante dix neuf euh, yow gisuñu sa tur lan mooy waral nekkoo candidat ren. <laughs> merci Pierre bon euh, maa ngi lay remercier di remercier aussi ñoom Salma ak euh, ñi fi nekk ñëpp ce plateau Seydina Omar. donc euh, damay wax ne d'abord euh, man bi ma jëlee option nekk conseil spécial président daaw Daouda Diallo bon ci laa renoncé sama candidature parce que déjà euh, j'avais fait le tour du Sénégal defoon naa tour du Sénégal. maamu fondateur Yewwi Askan Wi nga. oui ah. j'étais à Yewwi Askan bi. nga jóge fi avec fracas. waa avec waaw avec <laughs> ah. fracas parce que simplement que man Pierre dafa am loo xam ne chaque jour dama koy xeex dans ma mooy injustice ak aussi. absence de démocratie interne fu mu ko gis du ma ma nangu donc man moo waral peut-être je un incompris et je serai un éternel incompris parce que simplement pour être dans une démocratie majeure mais ñun dañoo war a changer comportement dañoo war a d'abord dans les partis politiques il faut qu'il y ait une démocratie interne à l'intérieur parce que yeewu askan bi loolu moo tax mu tas euh, donc chacun faisait du pilotage à vie Euh, donc te tey bu ñu boole woon au début bi man peut-être que xalaat bi ma amoon bu ñu boole woon ak boobu ba léegi bu ñu ñëw di waxtaan si si schéma si si projet de société yi mais du ñu yegg fii tey donc par la suite laa génn donc bi ma génnee nag euh, vraiment euh, j'étais dans dans dans cette dynamique de me présenter pour à cette élection présidentielle de 2024 ma def les 14 régions ma am la bénédiction finale di xalif général des Mourides Euh, Cheikh Mountakha Bachir Mbacké euh, yàlla na ko yàlla yàggal fii bon mais par la suite euh, j'ai été convaincu par Ablaye Daouda Diallo qui m'a demande quand même de venir au auprès de lui pour jàppale ko. nga dem transhumé. non du transhumé parce que man je de la famille libérale Pierre. man man man transhumé wu ma c'est-à-dire que sax lu tax ma. transhumance la kay. nekkoon euh, yeewu ci opposition bi gën yeewu dem ci <laughs> nekk conseil spécial. waaw mais mais parce que simplement xam nga Sénégal hmm. euh, dañuy dañuy defe ne mënuñu am position figée ci benn partie walla benn mouvance parce que tey Sénégal loolu euh, culture boobu Sénégal amuñu ko même les hommes politiques même les sénégalais amuñu culture boobu c'est-à-dire que tey bu doon ñaari pôle am. les démocrates ak les socialistes mun nañu wax ni mun nga bañ a jóge pôle bi dem mais tey Sénégal amul yooyu donc euh, Ousmane Sonko qui disait que jamais du ànd ak euh, euh, le système euh, ànd ak système mooy renoncer à ses engagements yi tax mu def mu def politique moom mooy yeewu def créer coalition wallu yeewu donc ñu gis aussi gars yi Khalifa Sall dem ànd ak Ousmane Sonko donc loolu man je pense que c'est un débat stérile li am solo mooy nan nga mën a apporter euh, quelque chose sa dëkk te man si dynamique boobu laa nekk man c'est-à-dire que Sénégal mu jëm ci kanam mu avancer dans la transparence dans la démocratie man ci loolu lay liggéey te quand j'ai vu Abdoulaye Daouda Diallo moment boobu Macky Sall renoncé gul à son mandat à, à se présenter mais bi mu gisee Abdoulaye Daouda valeur yi muy incarné ak aussi dafa rare politique nit wax la li mu la mu la li mu lay wax di ko def te moom il est comme ça c'est-à-dire que dama seetlu ci moom du changer du varier dans ses positions te lu mu la wax su boobu ngoon boo bu la nee nga dem tëdd nelaw. moom candidature avorté bi est-ce que daf koo ba léegi. Euh, waaw man man je pense que. moom digéré na ko. <laughs> waaw moom digéré na ko parce que xam nga moom Abdoulaye Daouda Diallo c'est quelqu'un boo xam ne mun naa la wax président Macky Sall lu mu bëgg lay moom lay bëgg cest dire que boo xoolee moom amul euh, amul ambition soo gisee sax ah loolu moo loolu moo ko gën a non politique nga ne amul ambition loolu ça c'est grave tant que Macky Sall a des ambitions moom moom du am ambition moom le président Abdoulaye Daouda Diallo moo tax euh, moom durant tout son parcours avec le président Macky Sall préparé wul loolu quoi pour que bu Macky demee mu toog parce que musul xalaat loolu. d'accord mais à ah, autour euh, dans l'autre côté nag ya a des gens qui se préparaient à succéder au président Macky Sall. donc loolu ça fait partie de ses erreurs moom Abdoulaye Daouda Diallo. Mm-hmm. c'est-à-dire que dafa waroon préparer succession au président Macky Sall mais il ne l'a pas fait il n'a pas voulu te du ci waxtaan sax ci yooyu. Mm-hmm. donc moo tax ma xam ne c'est un fidèle. Euh, koo xam ne moom pour Macky convaincre ko c'est c'est c'est rien du tout Abdoulaye Mamadou gisee fan yee ñu gis la nga def benn contribution euh, dans la presse di proposer ñu reporter élection yi mm-hmm. tey ñu nekk à deux mois ba conseil constitutionnel jot ay dossier ngay proposer euh, report élection yi lan mooy say argument mais Pierre sama argument dafa simple Euh, parce que simplement euh, Pierre dañoo dem ci dialogue dialogue national mm-hmm. dialogue boobu dem ci wekk le président Macky Sall parce que bu woowee Sénégal yi yëpp ne nañ leen dialogué nañ leen dialoguer pour jàmm d'abord pour Sénégal am jàmm pour que politiquement ñu retrouver des mécanismes pour démocratie bi ñu hisser ko au plus haut niveau loolu moo tax facteur yooyu mais ensuite troisième facteur pour que Sénégal nekk si les rails du développement bañ dellu ginnaaw mais facteur ñetti facteur yooyu yëpp actuellement on dañu noté ay manquements graves cest di dire que tey bu ñu toogee à un mois des élections wala deux mois ñuy wax kii mën na nekk candidat wala kii mun ta nekk candidat. loolu dellu ginnaaw bu rëy la ci Sénégal kon recul démocratique la. waaw absolument ba pare responsable mooy président la non seulement mais mais aussi le président de la République il moom il était euh, sur le point de sortir par la grande porte. parce que bu renoncé si mandat ne du du bokk d'abord acquis la acquis démocratique ses réalisations li mu liggéey Sénégal acquis la ensuite mu ne euh, euh, ñi ni ñu tëjoon kaso yëpp. nañu ñëw ñu ñu dialogue ñu présenté wu à l' élection présidentielle muy élection inclusive mais finalement on se retrouve cas bi ñu nekk nii kaaw Khalifa Sall kaaw Ousmane Sonko euh, euh, kaaw Karim Wade mais conseil constitutionnel da koy da koy invalider. Ah, mais ils ne pas candidats. ah dialogue boobu ban njëriñ la am. moo tax ma ne nag parce que dialogue bi passé c'était pour ñu delluwaat dans le jeu Khalifa Sall ak mais dialogue déposé nañu seen dossier nga ne dañ koy rejeté. mais dañ Pierre parce que xam nga problème amande yi. bu ñu la condamné problème amende yi réglé wuñ ko si dialogue bi kon dialogue bi n'a pas porté ses fruits c'est un c'était un dialogue donc boo xam ne euh, du dialogue sax laa mën a wax mais peut-être euh, dialogue da nga doon deal waaw di la quoi ah, parce que c'était une façon de faire euh, endormir la classe politique mais loolu moo yoon xam nga Pierre gis nga bu ñu bëggee ñu naw ñu dans un état man man le président Macky Sall il a il s'est inscrit dans l'avenir mais pour que loolu mu pérenniser ko mu éterniser ko mais il faut que mu xam ne moment bi am na ñu koy wër ñu bëri duñ ko wax li nga xam ne mooy réalité bi réalité bi mooy na ubbi jeu démocratique bi na fexe Sénégal nekk un pays de référence mais pour cela il faut que ñu am courage ñu am courage euh, bàyyi les gens se présentent comme ni ñu ko waxee woon ci dialogue bi mais mais bu ñu organiser dialogue def euh, gymnastique boobu yëpp ay weer weer weer weer ñuy def dialogue jël ay ay Moustapha Niass teg ko ci kanam jël président Macky Sall jël di toutes les autorités indi. Sénégalais fu nekk jóge fu nekk ñëw participer à ce dialogue mais finalement on nous dit que ji bu demee du présenté wu parce que amende parce que lii. donc man je pense que mais est ce que beneen dialogue puisque ñett ñooñu nga tudd ku si nekk déposé na ay dossiers. Hmm. nañ na rek conseil constitutionnel na leen. na leen validé jaratul mais c' est le danger euh, Pierre dina xoolul Macky Sall xoolul Macky Sall conseil constitutionnel en Afrique moom président la ñuy déglu rek loolu mu wax foofu la ñuy <laughs> jublu yoo xam nga nu fa demee <laughs> hmm? mais tout le respect bu ñu am pour cette sage yi quand mais xam nañu comment ça se passe souvent mais mais mais dans ce cas précis Khalifa Sall Karim Wade amuñu amuñu ak Sonko amuñu chance participer ci élection yi parce qu'ils sont été condamnés am na ay amende ñu war a fay donc man je pense que dialogue bi dafa omettre régler problème boobu hmm. te comme que omettre na ko il faut que trouver benn date nit daje waat ñu waxtaan si loolu ñu effacé loolu yëpp ba pare nag ñu ñu programme beneen élection dans la paix xam nga Pierre lu tax may wax. Euh, aussi si ban délai. bon reporter euh, élection yi pour combien de temps. un an deux ans. Hmm. maximum. parce que président Macky Sall desaat fii rek euh, non mais mais dans ce bi ñu nekk nii. Hmm. mais c'est la même chose que Macky Sall toog. cest dire que boo defee élection Sonko bokkul Khalifa bokkul Karim bokkul. mais nga dem même boo indee beneen nit mu remplacer Macky Sall mais mais loolu nga bàyyi fi Macky sax moo ko gën. nga bàyyi fi Macky Sall moo ko gën. Ah parce que enjeu. Mhm. enjeu bi ñu toll moo rëy. Mhm. enjeu élection présidentielle la. Mhm. donc waruñu seetaan euh, ay manquements yi nga xam ne euh, euh, vraiment ça ternit l'image du président Macky Sall. ça ternit notre démocratie mais ñu koy bàyyi mu jàll. mais léegi est-ce que reporter élection Bible la wala Coran. mais du bible du ko am Sénégal élection présidentielle kenn mosu ko reporter Sénégal. waaw mais mais Pierre. mais Pierre. Hmm. mais loolu dama lay laaj kon da ngeen bëgg a wax fii ba yomal xiyam kenn du mos a élection ah, présidentielle. am lépp jaaree yoon kay ah, gisuñu raison. pour mais fu mu nekk jaarul yoon. nañ ubbi jeu bi rek. mais fu mu nekk jeu amul ñoo ñëpp dëppoo nañu yi na ne conseil constitutionnel na leen valider rek bu jàll. waaw. de l' autre. jarul élection euh, ñuy reporter élection quand même. ñu ngi ci jàmm. man si tout se passe jarul ñuy reporter élection. merci madame si tout se passe bien la wax. waaw mais tu penses que yow on peut empêcher à Karim Wade de se pré on peut euh, invalider la candidature de Karim Khalifa Sall et de Sonko et que dëkk bi gars yi dem voter si jàmm est que loolu xalaat nañu ko. mais pourquoi empêcher à quelqu'un d'être candidat d'abord est-ce que duñu duñu appliquer li nga xamante ne loolu la yoon def rek war a bokk bokk ñu essayer loolu d'abord aussi retirer euh, euh, euh organisation élection au au au ministère de l'intérieur comme ni ko waa F24 doon waxee ngeen gën a accentuer xëy na seen combat ci loolu que report euh, de l'élection est-ce que gënul euh, gënul am solo loolu. non mais xam nga xam nga tey dafa am loo xam ne mécanisme électoral la. c'est-à-dire que tey mënoo jël dindi élection yi nga ne dafa am koo koy dénk mais loolu aussi ça nécessite un report n'est-ce pas. pas <laughs> forcément doo tey rek. pas forcément deux mois lu ne xaj na si. non deux mois mais Pierre moment bi munoo fi def dara moment bi report rek fi ne parce que lu muy wax ni idée bu pertinente la tey bu ñu jëlee élection yi confier ko benn structure wala organisation boo xam ne c'est autonome man je suis partant pour ça mën na nekk mais mais mais mais si nan nga koy defee da ngay xëy suba teel le président def décret mais mënta ah, nekk état boo ko waxee loolu dana naan administration électorale mooy organiser élection te on a une administration électorale rodée waaw mais léegi léegi le conseil même boo nommé woon un ministre en charge de l' élection aussi. moom day il va travailler avec l' administration bi fi nekk. mais ce ministre là n' est pas lié euh, au conseil constitutionnel amul leen lu ko lié le conseil constitutionnel décide moom selon la loi constitutionnelle c'est-à-dire que le conseil constitutionnel da nga koy indil ay dossiers man peut-être alerte bu may def peut-être mun leen ko comprendre mooy conseil constitutionnel tey dañu am liberté boo xam ne mun nga indi euh, candidature Pierre Édouard ñu xool ko mais ñu ñu rejeté ko. mais léegi te loolu yëpp lan moo koy indi mooy dialogue bi on mhm. defee dans le dialogue mhm. mais parachever mhm. toutes les questions yoo xam ne mun na empêcher euh, kii di Karim kii di xalifa parce que ñooñu ñooy cas yi mais à part ñooñu amul kenn koo xam ne fii au Sénégal. avec ay dem nañu assemblée modifier code électoral bi pour permettre la ñu duggaat dans non, le jeu non cela ne permet pas mun loolu rek doyul bu dee conseil constitutionnel loolu rek doyul. te loolu aussi boo gisee ñu ko fii seen antenne pour que ëllëg ngeen comprendre. ngeen xam ne lu tax ñu rejeté Karim ak Khalifa ak euh, Ousmane Sonko parce que conseil constitutionnel moom dafa am ay règles yoo xam ne moom la moom moom lay topp moom lay suivre pour pour valider une candidature donc te man je pense que en amont ci dialogue national la ñu waroon régler toutes ces questions. mais gisee entre nous est-ce que tey la classe politique sénégalaise pare na pour dem élection présidentielle pouvoir comme opposition. je ne pense pas Pierre man dëgg rek laay wax man j'ai des amis dans l'opposition j'ai des amis dans le pouvoir mais dama ne ñi may waxtaanal ñëpp xam nañ ne élection ci contexte bi munul am ba pare gis nga tension électorale bi nar am Sénégal peut-être mënu leen ko mesurer gum mais man bi dëkk dans les dans la banlieue man je sais que jour bu ñu commencé campagne électorale Pierre da ngeen gis lu weesu ay 3 mars parce que euh, bu bu ñu publier euh, la liste des candidats tension dina am benn tension bu installé wu Sénégal man maa ko wax. ah bon bi. bu ñu publier gisuñu tur yu ñenn ñi. waaw mais tu verras que ne élection du am. parce que y a des gens qui diront que élection du am man maa tey dama proposer report mais tu verras que des gens yu taxaw ne la fii Sénégal élection du fi am. waaw kon monsieur ah, Guissé yow da nga xam li euh, conseil constitutionnel di publier. non conseil constitutionnel. xam nga il semble être non non mais la la politique quand on fait de la politique dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy projeté wu dans l'avenir parce que mënoo def politique ngay xaar les faits être être devant le fait bu ko nangu mais on peut pas faire du gisaane quand même en politique. bëri jamono jii mu ngi ci loxoy yoon ñoom ñoo xam ñan ñooy bokk ak ñan ñoo dul bokk. mais yow faut pas faire en 2019. déedéet déedéet c'est pas di gisaane. Mm. xam nga yéen da ngeen di toog plateau di def analyse. Mm-hmm. vous faites des analyses mais mën ngeen ma accepter ma def sama analyse. bien sûr parce que analyse politique du question gisaane mais dangay xam ni fii ñu jëm bon la preuve tey lii suba mun nañu def vaar dañ ko def vaar dañ ne ah. moom Mamadou gisee waxoon na Walf ne di tel tel personne du ñu nekk candidat Karim Wade bu mu doon nekk candidat mais mais teg na tànkam fii ba bu yàgg pourquoi mu ragal ñëw Sénégal dañu waxante dëgg. pourquoi mu ragal. waaw <laughs> ah, mais parce que il sait que ne euh, su le plan juridique mais sangaguñ ko ba mu set comme ni mu ni mu waree. donc dafa des. des boobu nag ñun la ñuy gis dañuy gis ne lii maanaam kii candidature am bu demee conseil constitutionnel man su ma nekkoon conseil constitutionnel candidature Karim Khalifa. ak Sonko bu ñëwee dama koy rejeté selon la loi damay appliquer la loi li loi bi wax mais léegi ñun dañu xaar ba conseil constitutionnel régité ces candidatures ñu ne voilà dañoo jënd conseil constitutionnel dañoo ragal Macky Sall alors mais alors ko ñoom loi la ñuy appliquer il applique loi bon du gisaane nag parce que je peux ma tromper mais analyse bi ma def la et man je libre par nature même étant fu ma mën a nekk su ma gisee luy injustice je dis que ça c'est de te ku ma xam ku ne xam ne man noonu laa mës sa fonctionner léegi nag si on veu si veut si on veut des élections inclusives mm c'est ça la démarche euh, de cette de mon émission aujourd'hui oui. man je j'appelle à une, à une élection inclusive si le président de la République peut garantir ça mais tant mieux ñu reporter élection yi woote waat yeneen dialogue ou bien ñëpp ñoo bokk ou bien bu dee dañu maintenir élection yi mm-hmm. que ce soit une tout le monde participe bu ñu bu ñu am kenn ku ñuy dindi man loolu mooy sama sama appel. am naa si droit. waaw beneen appel bu mu def euh, Aïcha fan yële. mooy da nga demander président de la république pour mu libérer maître musa Diop. mi nga xam ne jamono ji mi ngi prison ci euh, l'histoire des diamants révélation yi mu si defoon lan moo waral loolu. bon mais man parce que man dama xalaat ne ay ay ay un homme politique un candidat. à l'élection présidentielle am na ay déclaration yoo xam ne jarut jàpp. xam nga loolu aussi dafa. Ah, mais nekkaguñu woon ci campagne. non bokkuñu ci camp ñu ci campagne. mais Maître Moussa Diop c'est un chef de parti. c'est un candidat à la candidature. mais mu def ay révélation yu garaaw quand même. waaw mais mais mais mais lan moo mën a mais mun nañ ko bàyyi mu dem ñu justice def ko poursuivre son cours xam nga lu tax parce que téye bi téye ko tëj ko moom laa lay je ne suis pas d'accord. Mhm. wala may ñaan président mais nañ ko nañ ko bàyyi mu am liberté provisoire. mu mën ak sa campagne mais je suis top. mais est-ce que être candidat vous donne le droit jël ay accusations yu ni toll teg ko ci ay ndoddu nit. waaw mais non ils n'ont pas le il n'a pas le droit. Mm. d'ailleurs dama condamné loolu mais dama ne. dans tous les pays du monde. tu vois Trump il fait sa campagne. te il est poursuivi par des chefs d'inculpation yoo xam ne bu doon Sénégal la du génn du génn këram Donald Trump. Mm. dem saccager Capitole dem Euh, def ay ay euh, euh, trafic de kii pour ah, les mais loolu pourquoi un citoyen ordinaire bu ko waxee ñu téye ko bu dee homme politique la comme ni Salma wax ñu ni waaye politicien la nañu ko bàyyi mu dox soxlaam non mais fee yi bokkul no fee yi mu def xam nga déclaration la mun nañ ko poursuivre déclaration jël accusation yu toll noonu teg ko si ndoddu nit waa non d'accord naa ma ne xam nga loolu dama ko condamné mhm. dama ne warul wax président wala Aly Ngouille Ndiaye loo xam ne du dëgg moom maître Moussa dama ko jëkk a condamné mais dama mën na la justice peut poursuivre son cours en lui donnant une liberté provisoire bàyyi ko mu dem defi campagne am loolu moo tax ma demande à ce que ñu libérer ko mais n'empêche que la justice continue son cours parce que le temps de la justice n'est pas le temps de la politique jërëjëf merci beaucoup euh, <laughs> Ablaye jërëjëf Pierre <laughs> merci si Abdoulaye Mamadou Guissé ñuy fàttali ne yow yaay njiital Aïcha Diakhaté Aïcha merci ah jërëjëf jërëjëf c'est baax ah waaw c'est vrai a Salma moom ngi lay jaajëfal bu boobu toog ak yéen mhm. ak Ndiaké di gërëm ñëpp ñu doon suivre. waaw Pa Assane <laughs> mon frère. l'invité de PEF c'est fini pour aujourd'hui on se rendez-vous demain mais le réveil se poursuit léegi léegi ak euh, la